sénégalaises yëpp ak sénégalais yëpp di sant sunu xaritu journalistes yi suma mbokk journalistes yi nga xamante ni yëpp def nañ déplacement bi ñëw tey fekk si li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi ñu bëgg seq ak sénégalais yi na tablewu leen ne fan yi yëpp sénégalais yu bari ñoo ngi naan Papa Djibril Fall gisuñu ko dégguñu ko waaye ñi ñu xam yëpp xam nañ ne su coow li baree kenn duñu ci dégg kenn duñu ci gis buy taw tamit ni ñu koy waxe kenn du fobeere loolu moo taxoon ñu ne woon tekk di xaar waxtu wi jot ngir ñu waxtaan ak waa senegaal yi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew leneen li it waral tekk tekkaaral bi mooy kenn dañoo yóbbaalewul ci dara duñu ko nangu ni ñu waxe woon ne doonuñu bu ma sàmba doonuñu bu ma demba bu askanu senegal lañu doon dañoo jóg bàyyi li ñu nekkoon ànd ak sénégalais yi ak sénégalais yi nga xamante ni li ñuy dox ñor na leen ngir ñu soppi doxalin bi nga xamante ni moom moo am ci réewum senegal loolu moo tax bëgguñu ku ñuy yóbbaale ci loo xamante ni xamuñu lu ñu doon xamuñu kan moo ko yëkkati xamuñu kan moo ko yëngal xamuñu fu mu jëm. loolu moo tax ñu ne woon tekk ba tey jii ci bés bi nga xamante ni bés bu am solo la di bésu 25 février 2024 ñu waxante woon ci ak sénégalais yi ngir lii ñu jëloon dénk ko senegal li ñu jëloon dénk ko président Macky Sall bés bi nekkoon bés bi nga xamante ni ci lañ leen ko waroon a delloo ngir li ñu sénégalais yi waxoon ne bés bi ci lañ ko waroon a jël delloowaat ko. ñi euh, kàddu delloo ko askan wi askan bi daan nag ki nga xamante ni moom la bëgg mu jiite ko juróomi at yi nekk suñu kanam loolu lañ président Macky Sall xañ Sénégal waaye it loolu la politiciens yi yàgg jëflante ak réew mi moo tax ma jàpp ne Sénégal benn jàmbaar la am mooy peuple sénégalais mooy jàmbaar peuple sénégalais peuple sénégalais mooy muñkat peuple sénégalais mooy jàmbar joo xamante ni gaañ nañ ko façon gaañ bu nekk xañ nañ ko lu nekk xañ nañ ko jàmm biir xam nañ xañ nañ ko jàmm biti xañ nañ ko taw feexam ba ay ndawam amatuñu yaakaar ay magam amatuñu yaakaar ay jigéenam amatuñu yaakaar ay góoram it amatuñu yaakaar ñi nekk ci jàng njàng mu kawe mi amatuñu yaakaar gis ngeen fan yi ngeen gis bataaxal buy wane ne ñoo ngi tijjiwaat université Cheikh Anta Diop waaye université Cheikh Anta ba mu tëjee it ba université Gaston Berger tijjee yëngu-yëngu yi ba mu fa amee dégg la ñu defati étudiants yi rey étudiant deeti te étudiant bu jóg dem ci université pour jàngi dee taxul dee yóbbuwu la xam-xam moo la fa yóbbu te loolu du lu bees lu yàgg la ci réew mi kon université jàpp naa ne 2024 bii politiciens yi war nañoo góorgóorlu ba bu ñuy def seeni mbir ñu épargner ci université yi ba kuy deeti dootul doonati étudiant bu ñu sañoon kenn du dee ñun li ñu wax boobu ba tey mooy bu ñu sañoon kenn du dee ci politique depuis mars 2021 Sénégal daanaka lu toll ci téeméeri nit faatu nañ fi ci loo xamante ni jàpp naa ne ay immaturité homme politique yi rek ñoom ñoo ko teg 1962 la ñu njëkk vivre les premières violences politiques au Sénégal 62 xëy na sax am na lu ko jiitu. 62 lañu lak ay bureau de vote ci Saint-Louis 62 kon violence bobu lan lan à chaque fois bo xamanteni fauteuil bi na fauteuil bi bu taxawé politiciens dañ naan kay leen ñu rayante kay leen Ils ngeen pour ma tokki fauteuil bi dara jarul dara jarul ak li ci conviction la plus forte

amna les journalistes yi sax sonn nañ ndax gis ngeen kérok liñ def suñu mbokk taskatu xabaar yi te loolu xëy na bu fekkoon ne débat économique bi jël na le dessus définitivement bu élection jàllee mënuñoo nekk ci campagne électorale campagne électorale jamono bu ci nekk c'est pas possible dafay am jamono politique am jamono liggéey mais mënuñu saa bu ñu génnee ci ci benn kii politique ñu dugalaat ñu ci beneen ba nit ñi duñu mën a am jotu def li nga xamante ni moom la ñu bëgg a def mooy def seen liggéey donc vraiment ça suffit largement te loolu euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy les politiciens professionnels ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fas yéene dundee politique ak les rentiers de la tension yi nga xamante ni bu xuloo amul ak xeex ci politique amul du ñu dund ñoom ñoo bëgg a gàllankoor sunu réew mi ñoom ñoo tas sunu réew mi donc te loolu jàpp naa ne doy na sëkk mënatul woy Euh, leneen li nga xamante ni am na solo te ñu bëgg koo wax mooy li ñu tuddee le deuil de la politique de la démocratie loolu jàpp naa ne lu metti la loo xamante ni am na tey ci Sénégal 25 février 2024 loolu tamit ñu koy naqarlu bu baax ndax tey rendez-vous bu am solo la woon may nuyu ma waa dëkk muy waa caajaay yi nga xamante ni tey bés bii dañu waroon a xëy dem voté ji mu nekk une fait de la démocratie ñu saafonte ak mbokk yi ñoom ñëpp ñu ko doon waajal ma leen di wu ñoom tamit waa Caajaay comme ni may massawu waa Sénégal yëpp di leen wax ne nañu defarwaat gën a taxaw xam ne bés du ñàkk élection yi foog ñu jàpp dat bi dem ci élection yi ñu soppi li nga xamante ni moom moo fi nekk bés du ñàkk kon kon Euh, ñoo ngi leen di gërëm ñoom it di leen sant ci seen taxawaay ak seen gunge ak ni nga xamante ni ñooñu noonu lañ ñuy jàppale di leen masawu tamit ci seen coono yi nga xamante ni benn Bokk Yaakaar moo leen ko teg depuis 2012 ni may masawoo waa Thiadiaye noonu lay masawoo waa Sénégal yépp ndax ñëpp sonn ci ñoom ni ma ko waxee woon keroog assemblée nationale def naa tuuru Sénégal bu dul benn du ñaar waaye nee naa leen keroog ci kaw assemblée nationale bi ñuy jàllale seen loi boobu ne len ñeenti sénégalais yu ma dajal ñett ñi pare nañ ci benno ci benno bokk yaakaar kon les gens aspirent à autre chose nit ñi bëgg nañ ñu gouverner leen nenen nit ñi bëgg nañ guerre jëgë fi nit ñi bëgg nañ euh, mal gouvernance jëgë fi nit ñi bëgg nañ ñu yor sénégal yor bu mucc ayib lool motax dialogue bi ñuy woote ñun japp nañ né dialogue lu am solo la japp nañ né waxtaan lu am solo la waye ni ko politiciens yi di défé dafa dem ba tax dina tax bés dina jot waxtaan jot te a ndax dañoo nekk di dialogue baatu waxtaan waxtaan lu am solo la wax nañ ko waaye nii ñu koy defee dañ ci am ay ambition yoo xamante ambition crypto personnelle lay pour gérer ay carrière politique, des uns et des autres pour revenir ci li tax le président Macky annulé bi euh, élection bi ñu reporté ko ñu waru ko def en 2012 dafa am Sénégalais yu jógoon président de la république dem ci parrainage bi mataluñu ñu ne leen yéen dem leen toog mënu leen candidat processus bi continuer ñu fal président de la république en 2012 mu tudd Macky Sall en 2019 lu toll ci ñaar fukki nit ak le C25 la ne yéen mënu leen am parrainage dem leen toog ñoom ñu def seen voie de recours mais mais terewul ñu dem ci élection mais en 2024 ñu ne am na ci ñoo xamante ni nañ leen ne kon on va reprendre tout le processus mais au nom de quoi Ken comprendre te loolu jàpp nañ ne du dëgg du yoon té histoire dina retenir képp ko xamanteni ya yaa président Macky Sall ci mbir mi ñu jàpp ne njombe gënu ko mag loolu motax ñun ñu japp né su fekkee né loolu rek lañ fay wuti conseil constitutionnel li wax président Macky Sall leer na te loolu na ko jëfee ko fexel ba le 2 avril na fekk nga joxé li nga xam na fekk nga organiser élection té ñun loolu dans ce sens là def nañu ay proposition yu de sortie de crise parce que dugg nañ ci crise ba pare ba nga xamante ni wul woon ñuy dajale sénégalais yi dajale euh, candidats yi naan leen nañu dem dialogue beneen bi mooy dañoo jàpp ne président Macky Sall dafa ñàkk jox cër ñi nga xamante ni kenn ci ñoom moo ko war a remplacer. gis ngeen communiqué bi Sidiki Kaba def nee na les 19 candidats ñëw leen président dajale leen waxtaan ak yéen ci une heure de temps su paree waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom lañ tuddee les recalés 19 candidats mu ne une heure de temps ñëw leen ñu toog waxtaan pour waxtaanee lii nga xamante ni jàpp nañ ne euh, moom ci boppam moom moo ko créé ñun loolu moo tax ñu ne duñu ci dem wuñ ci décision yañ fay jël tamit très sincèrement jàpp nañ ne jëlul en compte les les intérêts des générations futures te loolu mooy le problème de du politicien sénégalais mooy buy jël décision dafay xalaat peut-être la prochaine élection

dañuy faut nag di dialogue avec le peuple sénégalais continuer liggéey bi nga xamante ni moom lañ doon def waxoon naa ko politique dañu avertiroon ñaari nit ak seeni ñoon ñaar ñi ñu avertiroon mooy ñi nga xamante menace la am les dictateurs de la pensée unique mooy boo xalaatul ni ma wala boo bokkul fi ma bokk tey ma rey la te dootoo fi waxati ñooñu moom ba ñu duggee politique lañ am problème dañoo fekk ñu nootoon gars yëpp ne foog fii ñuy xool ngeen di xool ñu ne leen lool du fi amee ñeneen ñi ñooñu ñooñu tamit ak ñi leen jàppale xam nañ seen bopp ñeneen ñi mooy ñi nga xamante ni dañuy xëppaate mooy ñi nga xam jàpp nañ ne képp ku jóg am taxawaay bu am solo dañ laa war a dikk poste ministre ñun bañ ñu diggee poste ministre dañoo bañ dañoo bañ bañ ñu bëggee def euh, bañ ñu bëggee jox alal it dañoo bañ nanguwuñu ku ñu ger nanguwuñu ku ñu jox ay poste parce que dugguñu nekkuma candidat à la présidentielle pour être ministre loolu aussi dama bëgg mu leer nekkuma candidat à la présidentielle pour être chef d'agence loolu suñ ko bëggoon démb la loolu am nañ ko yàgg na donc loolu aussi dañ ciy dalal xelu sunu ñi ñuy jàppale ci biir réew mi ak ci bitim réew xam ne ay positionnement ci politique dugaluñu ci politique

soxla nañu liñ ci indi ci politique ci jom ak ngor soxla na ko liñ ci indi ci fit ak jom soxla na ko liñ ci indi ci xam-xam ak hikma tamit bu mat sëkk soxla na ko boole kook ak xam-xam boole ko teggin boole ko yitte ju mat sëkk loolu moom moo tax ñu dugg ci politique moo tax tous les gens qui ont tenté et ils se reconnaîtront de nous déstabiliser ñoom ñëpp dañoo mujj yéemu ci yàlla ndax xam nañ ne ah ñun de li ñu foogoon loolu nekkul ñii jéem nañ ko ci xupp ñii jéem nañ ko ci xëpp ñii sos nañu ba sonn ñii wër nañu plateau télé yi lu ne wax nañ ko ñun ñu dëgëral suñu dox rek xam li ñu bëgg xam niñ koy wute di ko wut ci jàmm di ko wut ci teggin di ko wut ci yar te noonu ñuy wute noonu la ñu fas yéenee yor noonu la ñu fas yéenee yore Sénégal kon encore une fois encore une fois Euh, l'intérêt de cette rencontre c'est d'abord de dire que politiciens yi bu ñu fowee askanu Sénégal rawatina ñi wax ci kaw di wax ci suuf rawatina ñi nga xamanteni aussi dañuy jël ay position bañ ko assumer la politique responsabilité corollaire am seexandoolam moy assumation su da ngay def politique te ñemewoo assumer bàyyil su dee da ngay def politique te amoo courage politique bàyyil su dee da ngay def politique te yàlla dimbali la nga mën muñ li nga xamante ni moom alal ju léwut bàyyil su dee da ngay def politique te noppiwoo ci sa bopp ci ay jikko yoo xamante ni di nga lu bari di nga ko di nga ko et loolu c'est un message à l'endroit de toute la classe politique et loolu c'est ça qui est ressorti des entretiens ak des rencontres yi ñu def ci askan wi askan wi dañ ñu wax nañu lañ ñu digoon depuis 64 ans loolu gisuñu ko gis ngeen li xew bërki démb wala démb Kédougou daanaka ci fan yi ñu romb lu toll ci juróom-ñetti nit faatu nañ ci éboulement yi nga xamante ni moo am ci foofu nga xamante ni fa la ñuy wutee li nga xamante ni moom mooy or bi lu toll ci juróom-ñetti nit insécurité bi insécurité fees dell ci réew mi bu ngeen demee fii di dégg ngeen ko keroog li xew Seras ma leen di nuyu ay jàmbaar yu fa nekk di liggéey am fulla am jom bëgg lu ñu yóbbu lu ñu yóbbu lu ñu yóbbu seen kër euh, lu lew ay rendeek lu ne ngeen fay dégg ndax ñàkk sécurité Seras ak na mu amee solo yëpp ñu ne benn ASP lañ fay teg pour mu assurer la sécurité loolu su fekkee ne danga ngaa jàpp ne yaa ngi koy def parce que da nga bëgg nit ñi parce que da bëgg a taxaw nit ñi li ngay def ak li am wuute na te njiit li ñuy xaar ci moom. moy mu am yërmande ci askanam gaay yi may gis ci ñenn ci ni ñu nguur gi ak ñenn ci nguur dama gis bu mat bu mat ci gis wut nguur rek bëgg fauteuil bi rek tax ñi yaq bëgg a rew mi ñi bëgg a jikko yi ñun qui nañ ko mu ko rempart la doon contre parce que li ñu ëppal solo du fauteuil bi liñu ëppal solo du élection liñu ëppal solo du mandat suñu ak Sénégal weesu na mandat weesu na élection suñu ak Sénégal gën na sori lool dafa am ndono lo xamanteni mom lañ fi fekk mag ñi bayiko fi les pères fondateurs les précurseurs les francs-tireurs ñun lool lañu bëgg sam lool lañu bëgg ñongal ba nga xamanteni ni ëllëg bu ak ñom duñu rus dinañ nek ah léeg bi ngeen fa bayiwon kat samal nañ leen ko waye mieux mieux encore mieux encore gorgolou nañu ci gorgolou nañu ci ba fexé nañu ba bàyyi fa jikko yu tedd yo xamanteni tay doomu Sénégal dootul ñé kenn ci aduna bi nga am pétrole am gaz am lepp ba paré say ndaw di jël ay gal di dem ci géej gi loolu nañ né musiba la kon encore une fois ak toute la violence bi nga xamanteni ni wax naa ko léegi tudd naa léegi ci sama discours bi may wax ci français suñ benn militante boo xamante ni Chacha la tudd euh, nekkoon Maroc bi ñuy waaja dugg ci élection yi mu ñëw Sénégal pour ànd ak ñoom ci li nga xamante ni moom mooy campagne bi nekk jigéen bu jàmbaare moom ngeen seen keroog mu sol maillot Sénégal boobu ñu yégal ko ci benn pick ak policiers yi di ko dóor dóor yu métti yooyu kon loolu ñoo ngi koy condamné di ko dénoncé di ko massawu tamit parce que ba muy jógee Maroc di ñëw fii de faire pour campagne pour vivre un grand moment de la démocratie sénégalaise Non, la ñuy tamit ñi victime de violence quelle que soit la nature de la violence qui processus électoral Sénégal waratul un processus électoral est en violence Nous loolu la condamné loolu la ñu la meilleure façon de changer loolu moi, ñu renouveler li nga le personnel politique la vision bi politique parce que kay ma kaay leen ma rek mais jarul rayante aussi jarul jarul dé jarul rayante kon encore une fois nous demandons au président Macky Sall nous demandons au conseil constitutionnel nous demandons à tous les acteurs yi nga a ñoo wara intervenir ne nañu def avant le 2 avril et que les serviteurs en l'occurrence nos coalition Papa Djibril Fall président jàpp nañ ne mooy bi nga xamante ni moom la sénégalais yi soxla pour mu ñëw remplacer ki nga xamante ni moom le président de la république le euh, jàppaguñ dat dat bu ñuy comme fexe na comme comme comme li gën dinañ ba xàññi suñu dat bi waaw voilà nañ ñu dimbali defal ñu loolu parce que sénégalais yi loolu la ñu soxla koo dajeel danaan la njàqare bu mag la àndal ñëpp jaaxle nañ kon njàqare boobu encore une fois politiciens yi am nañ habitude di ko sénégalais yi mais nous ñu dimbali ba génn si ba mën a ci en tout cas leen di gërëm bu 25 février 2024 restera dans les annales comme un jour de deuil de notre démocratie un jour sombre pour la République un jour sombre pour le Sénégal permettez-moi d'abord à l'entame de mon propos de m'incliner devant la mémoire de toutes ces morts, ces morts pour le report de la présidentielle prévue initialement ce jour et reportée par l'unique responsable de la crise actuelle, le président sortant, M. Macky Les quatre jeunes morts hélas, de cette décision malheureuse sont les morts du report, des morts de l'impéritie et de l'incurie de la classe politique. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, après huit mois de jalons démocratiques, après le retrait des fiches de parrainage par 268 candidats à la candidature. Après le dépôt de 93 candidatures au Conseil constitutionnel, unique instance de supervision de tout le processus électoral, après la validation définitive de 20, puis de 19 candidats officiels par le Conseil constitutionnel, sous le prétexte fallacieux de soupçons de corruption non étayés par une seule once de début de preuve, le président Macky Sall, en toute illégalité et de manière scandaleuse, a décidé d'arrêter le processus électoral en reportant le rendez-vous avec le peuple qui devait se tenir en ce dimanche il restera dans l'histoire et devant les hommes comme le principal acteur de ce plongeon dans l'inconnu, de cette prophétie autoréalisatrice d'une crise institutionnelle qu'il aura lui-même créée. Après cette forfaiture innommable, ce garrot qui a étranglé toute notre jeune démocratie, au bord de la suffocation. Le voilà qui, avec toute sa désinvolture habituelle, dans un savant mélange de flou et de piège, appelé à un soi-disant dialogue. Un dialogue moulu dans le dilatoire et le manque de considération, de respect à l'endroit de son ou ses futurs remplaçants. Pour avaliser des schémas préconçus dans ses officines. Non, non, non, non trois fois. Nous n'irons pas à ce dialogue. Nous n'irons pas à ce dialogue nous n'irons pas à ce dialogue parce que la pratique habituelle du dialogue prôné par M. Macky Sall banalise l'idée même du dialogue. Et par là haute toute la quintessence du mot dialogue à sa véritable signification. On connaît la méthode du président Sall. Acte 1, on met les gens devant le fait accompli. Acte 2, on fait sa cuisine interne et on crée son monstre. Acte 3, on appelle les gens pour entériner. Rien que pour cela, nous nous opposons à ce dialogue car en réalité, il s'agit plutôt de compromission. Non pas, non pas que nous soyons contre le dialogue, au contraire, toute notre trajectoire politique, notre pedigree, ainsi que nos déclarations promove le dialogue, se rempart face au péril. Il y a de cela huit mois, en septembre 2023, apercevant déjà les nuages grossir au-dessus de nos têtes du fait de, des politiciens, j'avais longuement appelé à un dialogue. Certains d'entre vous en sont les témoins. Hélas, trois fois hélas, la bipolarisation mortifère que nous avons toujours dénoncée de l'espace politique a ignoré notre appel et en voici les conséquences. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, les termes de référence du dialogue sont déjà pipés par celui-là même qui appelle au dialogue. Ceci pour quatre raisons. Premièrement, la décision du Conseil constitutionnel ne souffre d'aucune interprétation et est très claire le président Macky Sall doit impérativement organiser l'élection présidentielle dans les meilleurs délais et passer le pouvoir avant le 2 avril. Les meilleurs délais supposent avant le 2 avril, date butoir de son mandat de 5 ans. Donc organiser un dialogue sur la date de la présidentielle est incongru et sans intérêt, sachant que la décision submentionnée est limpide. Deuxièmement, qui dialogue avec qui Le Conseil constitutionnel a validé une liste définitive de 19 candidats après le retrait d'une, après le retrait d'une candidate. Et le chef de l'État veut qu'on dialogue avec des candidats non retenus, la société civile et certaines forces vives et les partis politiques dans leur globalité. Aucune de ces catégories ne sont candidats à cette élection. Rien que cette envie de mélanger des acteurs aux intérêts divergents traduit le cynisme absolu qui sous-tend ce dialogue. Sans rien demander, la coalition Papa Djibril Fall président a franchi les haies démocratiques avec brio. En dépit des invectives, de la boue et de la Gadou pour être au rendez-vous de 2024. Comme je le disais le 6 mai à Tchadjaï, lors de la déclaration de candidature à la présidentielle, nous l'avions dit et nous l'avons fait. Et c'est le moment de remercier tous les serviteurs et tous les Sénégalais qui se sont mobilisés partout, au Sénégal et dans la diaspora, pour permettre à cette candidature d'être définitivement, d'être validée, mais pour permettre aussi à cette formation politique d'être définitivement une réalité politique. Nous disions à l'époque, le 6 mai, que caution d'unité, parrainage d'unité. Pour rappel, pour rappel, en 2012, pour démontrer que les arguments qui ont été avancés par le président Sall sont des arguments fallacieux qui ne reposent absolument sur rien du tout, pour rappel, en 2012, les candidatures de M. Keba Kent et de M. Youssou n'ont pas été retenues. Malgré cela, le processus est allé jusqu'au bout. En 2019, celles de M. Karim Wad, de Malik Gakou et Bougan Gaydani et tant d'autres. Vous vous rappelez, en 2019, il y a ce qu'ils ont appelé à l'époque le C25. C'était aussi des candidats, entre guillemets, spoliés, en tout cas qui n'ont pas été recalés. Mais malgré ça, le processus est, allé jusqu'au bout. Pourquoi diantre faudrait-il cette année forcément faire dialoguer des candidats validés avec des candidats qui n'ont pas été retenus pour aller à la présidentielle Le tout dans un tel désordre dont on est à peu près sûr qu'il ne sortira aucun consensus. Nous ne serons pas à la table d'un dialogue débouchant sur un échec programmé. Troisièmement, pour justifier la tenue du dialogue, son initiateur, M. Macky Sall, avec ses co-organisateurs masqués ou démasqués, prédit la vacance du pouvoir après le 2 avril car matériellement, il a empêché au Sénégal d'avoir un chef de l'État à la date échue. Or, il porte l'unique responsabilité de la crise institutionnelle dans laquelle le Sénégal risque de sombrer après le 2 avril. Car le fait générateur de tout cela, c'est son discours d'arrêter le processus électoral à 10, le processus électoral 10 heures avant le début de la campagne. C'est incroyable quand même. Heureusement que le Conseil constitutionnel a sauvé la République et la démocratie en abrogeant son décret sans base légale et en déclarant la loi contraire à la Constitution. Le dialogue apparaît dès lors comme une tentative d'hameçonnage, de piège pour chercher des complices dans cet effondrement général de notre héritage démocratique. Rien que pour cette raison, nous disons non au dialogue. Enfin, quatrièmement, le vrai dialogue celui non galvaudé, est réclamé par les Sénégalaises et les Sénégalais. C'est le dialogue avec le peuple, par le vote. En tant que candidat officiel à l'élection présidentielle, j'ai la légitimité et la dignité de revendiquer d'avoir obtenu l'onction du peuple sénégalais à travers le parrainage en étant candidat, ni en étant candidat ni par procuration, ni par procrastination. Que nous dit ce peuple Je le dis, je le répète, nous ne sommes ni un candidat mandaté par qui que ce soit, par quel lobby que ce soit. Nous ne sommes, nous ne sommes, nous ne sommes ni un candidat par défaut, nous ne sommes ni un candidat par procuration nous sommes un candidat qui a eu l'onction du peuple sénégalais. Que nous dit ce peuple Assez de vos tambouilles politiques et politiciennes, assez de vos querelles, assez de votre brouhaha, alors que le personnel politique est, est infiniment minime devant les boulangers, les entrepreneurs, les travailleurs du secteur privé comme du secteur public les marchands ambulants, les tailleurs, les menuisiers, les mécaniciens, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, etc. Bref, toutes ces catégories sociales du pays, hautement plus dignes et plus soucieuses du bien-être collectif. Assez de ces politiques politicailleries. Assez, assez, assez. Devant tant de peines, devant tant de morts, tant de blessures à l'image de celles vécues par notre brillante et vaillante militante Chacha qui a été sauvagement brutalisée par les forces de l'ordre. L'heure de la réconciliation, du redressement et du recentrage de notre pays est plus que jamais arrivée. C'est le sens de ma candidature et l'essentiel vers lequel nous devons toutes et tous cheminer ensemble. Un peuple, un but, une foi. Vive la République, vive le Sénégal.